alhamdulillahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lxuqad waj'alhu dakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allazi allamta luqmaan alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 te farlu ci jaamu gi bu ñu demee ci téereb sëriñ alxaaji mbaki bi mu dajalee waxi sëriñ Tuubaa ci xaajub ñeenteel ba ca numéro 48 maanaam xëtu 48 des na fa fekk wax ji may wax mu ne sëriñ Tuubaa dafa mas woote ba ñëpp daje wala ba ñu bari daje mu ne xam ngeen lu ma leen di doye ñu ne ko déedéet mu ne bëgg ngeen jaamu yàlla seen boroom moo xam ngeen lu tax mu bëgg ngeen jaamu yàlla seen borooma ñu ne ko déedéet mu ne jaam bi sunu borom baaxal ci coobareem nga ànd ak moom ci biir baaxam googee ba àgg ci lu la yàlla digal mbaa mu terale ko nga ne naa ko woyofal ngir baaxug diw mii fob baaxug diw foye nguurug yàlla ga yàlla du nangu diw du nangu mas naa génn nit ànd ak tàngaay wu metti bi mu ñëwee daal di wax ci kaw ñetti yoon ne jaamu ji leen yàlla seen boroom jaamu ji leen yàlla seen boroom jaamu ji leen yàlla seen boroom ndax jaamu yàlla gii ngeen gis ma di ko def kat sama bopp laa koy defal mas naa wax sëriñ Mbay Saarit ne ko bokkuñu biir bokkuñu bàmmeel bokkuñu biir bokkuñu bàmmeel Euh, sëriñ saalihu radiallahu anhu nag daanañu wax ne sëriñ Tuubaa di loole mu daan digle lu mata roy la te mata topp ndax moom de daana wax ne bokk na ci pexe seytaane bu ma leen digalee dara seytaane daf leen di déey na leen moo lim leen wax kenn da ko mën a moom rek moo ko man bàyyi leen ko muy sëñ bi di ko def yéen ngeen nekk ci li ngeen nekk waaye nee na roy ma de dana taxaraw ku royut kon nag loole mooy ay ndigalam sëriñ Murtada radiyallahu anhu dafa daan wax ne waggi jàmbur de lagg na waaye xeexut loolu de ay wolof la kon nag waggi jàmbur boo ko yaakaaree itam lagg na waaye xeexut di wax ju ama am solo kon lépp loo xam ne nii wuute naag ndigali sëriñ Tuubaa yooyu te nga xam ne moom la daan jëfee di ca yare buñ ko defee itam topp njortu rek moo ñu ci dugal te sëriñ Mortada dafa daan wax ne sëriñ bi mooy lislaam lislaam mooy sëriñ bi loo gis nit loo gis nit di ko ci def mu wuteeg alquran ak sunna xamal ne topp njortu moo ko ci dugal sëriñ Malick Bassène radiyallahu anhu daf daan xàjjale rafet njortu ak ñaaw njortu ak topp njortu daf daf daan wax ne nangeen rafet njortu te bu leen ñaaw njortu te bu leen topp njortu daal na rafet njortu mooy di def lu baax te yaakaar lu baax ñaaw njortu mooy di def lu baax di yaakaar ab safaan topp njortu mooy di def ab yaakaar lu baax kon nag wax la yoo xam ne nii yu am solo la te mat a seetantal te góorgóorlu bu baax ndax Sëriñ Tuubaa de wàccoo na ak mboolem ñëpp wàccoo na mboolem ko aju ci moom ci wax ak digle yoon wa nga xam ne ni ca la jaaroon yar ci njabootuk boppam yar ci mboolem ña jaayante woon ak moom yar nu ci ñun ñi ñëw gannaawam ndax bind na lépp ba mu leer mu bàyyee nu ko kon nag eh, rafet njort lu baax la waaye nag topp njort moom baaxut te rafet njort la koy taxam def mooy nga teg sa tànk fa nga ko war a teg